juróom-ñeenteelu édition ngir dellusiwaat nag ci cosaanal màggal googa ak surtout jàngale yiñ ci war a jàpp euh, dañuy dalal ci waxtaan wi tey Serigne Moustapha Ndiaye Thiargane di conférencier bu ràññeeku lool jeex lool itam ci yoonu murit ay woy juram am lu baree bari lu ñu jëflanteek euh, Cheikh Ahmadou Bamba ak waa këram loola tax ñu tànn ko tey ngir waxtaanee màggal gi ñu ngi lay dalal Serigne Moustapha Ndiaye Thiargane di la ziar di la jox sa wàccuwaay bismillah ci démb waa Rewmi FM euh, soxna euh, Fatou Thiam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di am mm-hmm. kontante ak mbégte di toogaat fii ci Rewmi FM ngir ànd ko ak waa Rewmi mm-hmm. ci dem bi nga xamante ne bii moom la seex Ahmed Bamba Khadim Rasoul demoon Gabon ngir liggéeyali boromam mm-hmm. ba tey jii comme ni ko waxee rek ñu def ko ci téeméeru édition ak fanweer ak sàngam waaw màggalu Tuuba mooy loo xamante ne bi mi ngi am ci diggante colonialisme ak euh, Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu nekk ci këram bu nekk ci benn village bu mu tuddee Mbacké Bari ci Jolof mm. ci wetu Caamen tuuti foofa la waxee ne xarajtu yowma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fi shahri safar waaw kon gis nga moo waxal boppam ne man génn naa bisub samedi maanaam fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ngir liggéeyi yonent bi sallallahu alayhi wa ci weeru safar mm-hmm. loolu nag la waxal boppam ne am na ay sabab yoo xamante ne bii dugg na ci biir loolu ndax dañ ko génne yóbbu ko mu war a dem euh, Gabon. Mm-hmm. la wax nag sababu xaybati an allaha araada an aminhu jaaha wa an akunu shafian li qawmi wa an akunu qadiman fi dawmi kon kat génn gi moom premièrement am na ci sabab soo xam ne moo tax mooy suñu boroom moo namm suñu boroom moo bëgg mu doon koo xamante ne bii liggéey liggéeyaakoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay doon waaye tamit koo xam ne nii kuy xettali aw génn leen ci yoon yi nga xam ne day jëmm ni sawara moom loolu tamit nam na sunu borom nam na ko ci waaye nam na ci yëkkati tam darajaam ba aw turam àgg foo xamante ne bii maanaam ci àdduna bi bépp lay doon kooku nag kon moo xëy ci këram googu ci Mbàkke euh, Bawol Mbàkke yi euh, daje ak euh, nasaraan bi ci barab bu ñuy wax kokki ndax ba mu xëyee ca fajaru gaawul jóge ca jàkka ja fekk yebaloon na rakkam maam Cerno Ibrahima muy boroom daarul moxti mm-hmm. mu wara na dem waxtaani ak nasaraan bi ci ndigalal sëñ bi ba muy dem bay war a bay dugg ci kër gi la ko xamal na ko man day am naa ndigal ci sunu boroom pour wuy ji nasaraan bi ñu génnee di dem la tase ak ñoom ci barab bu ñuy wax jeewal ñu koy wax ci wala fi di ko wax tund jeewal loolu jéewal googa fa la jànkoonte ak nasaraan bi ñu yendu fa wala ñu def fa waxtu yu bare bari ba ni ñu jiitlante waate dem Louga biñ demee Louga yi tamit def nañ fa benn diir ci la xame ne day jil saxaar pour dem Ndar foofu tamit fi lay jële saxaar ci Louga dem Ndar fi na fa daanaka quarante jours ñaar weer ñaari weer yu manqué tuuti def na foofu ci ndar ngir rek maanaam war dem sax moom ay yëf yu xew yu xew bare bare am na fa dese na fa ak euh, yu bare bare siyaara ji na ko dara bu yàlla yu bare bare waxante na fa ak siyaara ak bu njaay bi nga xamante ne bii mooy exilé bi ne bii moom lañ ko war a Euh, lu mel ni barabu maam as Camara ak yooyu yëpp dem na fa nemmee jikko fa dox na fa ay yitte yu bare bari signaloo nañ ko fay tamit euh, won ko ne ko yàlla euh, nangam nangam moom itam mu wane ne yàlla moom mooy buur bi nga xam ne mooy qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad kennal suñu borom foofee ca biiru ndar boobule ginnaaw boo mu jógee foofa tamit beneen ngoonu alxames mu gontewaat foofu jëlaat saxaar ñëwaat fii nga xamante ne bii mooy ndakaaru wàccaat ci gaaru Dakar war a dem fanaani Cheikh Dial Diop war fa def lam fa def ak biir bam fa def néeg bu lëndëm dañ ko dugal maanaam foofee nag da ngay dégg mun a foofe sunu la ko sunu maam jaara fet foofa la ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fet di suñ ko xam billaahi jibril alayhi salaatu wasalaam fekk na ko foofu foofee nag fa lañ waxe ne mënul woon sujjóot ngir tartar waaye ba mu fa agsee te indaale fa koor barab bañ ko dugal xat gu mu xat tax na mënul woon a sujjóot ngir tartar waaye kon ci la taxawe jàng baqara ak imran jibril ubbi néeg ba lil quraan kon foofee loola tam ca ma nga amee ca euh, néeg boobee nga xam ne ci lay waxee saa yu ko fàttalikoo am xelam du def dara lu dul màng jëm ci jixaat foofa nag fa la jógewaat daal di ñëwaat kër maam Ibrahima Binta Guèye ci penku cëddéem yeggalee foofa bëccëg ba ba takkusaani suuf mu delluwaat ca Kamba fanaan fa bët set di la vingt un mu dugg nag ci li nga xamante ne bi moom mooy bateau yi euh, euh, tubaab yi nga xamante ne bi ñoo nekkan ko fa lu bare bare xew na ko fa suñu mbokk li bi def mooy Camp Dial bi ci Ndakaaru waaw Camp Dial Diop hmm. ci Dakar boo déggee mu ne fanaan na fa yaari guddi lekkul naanu lu dul ci leeri yàlla kooka neenu hmm. foofa la ko fanaan suñ ndokkili bi ñoo def délégation dem jëli ji ko foofa ñëw indi ko ci dañ fii quartier bi nekk tey man na président soxna yaa awajan mu yem foofa ci recourement bi jëlee foofa la ko boole ak soxnaam ko tudd Ana Faye mu di yàlla yàlla fay ko fay mu delluwaat nag canjël du àgg àggale fa guddi ga bët set mu dem ci ànd ak nasaraan yi daal di dem euh, euh, port bu Dakar hmm. ci place bi nga xamante ni bi moom mooy Molde Molde Molde nag defe naa foofu la benn service bu tudd le messagerie fa la nekkan ñenn ñi di wax na waaxu messagerie waaye message messagerie hmm. maanaam benn service la ngoon boo xamante ne bi foofu la nekkoon foofa la embarqué daal di dem fii nga xamante ni bii gën na caa siiw di Gabon hmm. mu gën a yàgg ci Gabon barab boo xamante ne bii moo tudd eh, Mayomba hmm. Mayomba boobu nag foofa fa la sax juróomi at yoo xamante bii moom ak nasaraan bi ñoo ko fa nekk fa nekk juróomi at yoo xamante bii hmm. ma di waxante ak ñoom li muy waxante ak ñoom xamuloon waxuñu koon bis ba ngay ñibbisi lu ci semaine bi nga xamante ne bii ci la war a ñibbisee mm. ci la ko sunu boroom xamale ne ko nag war ngaa dellu nag kon war googu mu war a dellu nag ci lay tàmbalee nag di wax résultat yi nga xam ne mm. moo aju ci dem gi ndax fee moom da doon wax naa asiru maal abaar xiina a wa zanna al ida anni maa ngi dox ànd ko ak tànneefi sunu borom bi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. waaye man kat maa ngi dox jëm ci sunu boroom man de maa ngi dox ànd ak gaayu uh, baax yi mm. waaye man bi tamit maa ngi dox ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi mu toogee nag ba uh, mel ni dafa war a wàññi ko rek day tàmbal nag bi wax nag yi nekk ci yoon wi mm. maanaam maanaam di di di tànn nag ay baat di di di bind hmm. di wax naa ijaal rujuwaay ila qawmi saadatana wal kastina yowmal jamhil xalq niiraana yow day sunu borom maa ngi lay ñaan ci biir dem gi hmm. nga defal ma ci retourné gi muy wëññeeku gi Sénégal mu nekk loo xam ne nii dafay texeel dafay dafay ramm hmm. dafay ramm sama aw nit aw nitam nag mooy lislaam rek mm-hmm. aw nitam mooy euh, diine nit ci diine mm-hmm. aw nitam mooy waa kër Cheikh Abdul Qadir Jilaani aw nitam mooy waa Abu Hasan Al-Ghazali ay waa mooy mooy Cheikh Ahmad Tidiane Abu Abbas Cheikh Ahmad Tidiane maanaam turuq yooyu mm-hmm. ak confrérie yooyu ñooñu la defoon na mooy ay nitam ndax biñ ko xalaatee rek moom bi tontu ñooñu la waxal ne mooy am dëkkam li nga xamante ne nii ci ñooñu ci la fas yéene tudd mbooloo mi ak ginnaaw bi ñu tibbee ci mbooloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ànd ak liggéey loolu tam foofu la sa jeexaw mbooloo wala ànd ak ñoom kon bise ngi boo xam ne ci njëlbeen bi buñ koy fàttali mel na ni jaamu yàlla rek a taxal bise ngi xam ne buñ ko tuddee tudd na alxuraanul karim ci maanaam dem gi hmm. dem gi itam li ko sabab mooy l'islam taxaw l'islam itam bu taxawee ñëpp am permission ci jëfandikoo lislaam hmm. ci côté bi mu leen neexee bi si yi boo xamante ne bii moom itam bi mu koy sos wala bi muy am ci sabab bi suñu boroom hmm. moom mu ngi doon bëgg rek lislaam maanaam taxaw comme ni nga xamante ne bii leen gisee woon ne euh, nasaraan bi nangu nañu lu bëree bëree bëri ci diine lislaam mm. ba dugg ci fànn gu bëree bari kon nag moom li nga xamante ne bii moom moo ko taxoon a jóg mooy jàmm yàlla la doon def mm. bëgg itam ñëpp jaamu yàlla mm. jàkkaarloo ak ñoo xamante ne bii tamit seen bopp leen ñoroon mm-hmm. te nekkuñu woon ay jullit waaye seen bopp leen ñoroon ngir itam lislaam yitteelu leen ba tax na moom bu ñu nekkee ci dem gi nag mooy waxal boppam ne génne nañ ma man sama ay dëkk tasaare nañu sama ak njaboot maanaam teqale nañ ma ak ñoom def nañ ma lu nekk waaye ci biir loolu tamit ci lay wonewaat ne teqalikoo boobu mu teqalee ak njabootam day ñi ko def mooy ñi nga xam ne dañoo wutal yàlla am ñetteel hmm. dañoo wutal yàlla ñetteel boo demee ma ngay wax naa yaa jumlatan xadd zallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun kon kooku mooy suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mm-hmm. euh, kenn juru ko ca moom juru kenn na mm-hmm. kon gis nga fu mu toll rek mi ngi ci li nga xamante ne bii moom moo ko tax a jóg muy diggante suñu borom tabaraka wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di jaamu suñu borom tabaraka wa taala si li nga xamante ni bii moom moom moom la jublu waaye ñooñu tamit contre loolu lañ bëggoon mooy fexey ba kenn duutub jaamu yàlla ni ñu ko war a jaamoo waaye tamit kenn duutub jëfandikoo maanaam principe islam kenn duutub jëfandikoo mabaadi islam ni nga xamante ni bii loola moom moo leen euh, jotalee ak moom lu nekk nag lu nekk nag am na lu nekk tamit xew na ci biir loo xam ne mën naa yóbbu ba kanam ndax nag yi dañoo bari lu nekk tam xel na ci biir ndax bëggal ko gàndal ko ngir maanaam liggéey gi mu war a liggéeyal boromam lu dox waaye booba dafa mel ne jot naa formé ay jidd yoo xamante ni bi ñu ngi ci wetam ngir itam ànd ak moom liggéey bi ñooñu tamit bi muy dem am lu mu batale woon muy bàyyi mbooloo mi ak yàlla suñu borom tabaraka wa taala dan di leen teg nag ci loxool maam Cerno Ibrahima maam Cerno mel na dolli nag ci wala mbooloom mi dolli ko na ci loxoom lu jiitu ku tëdd ki di jógewaat ca dëkk yooyu nga xamante ne bi fa lañ ne waaye kon boobu xoolee dem bi wax na ci eh, xasida gurum naa ne lii kun bikun sarmadan wajaal masiriya sa jawfal fara lil wara mislal maharimi kon moom boobu moom moo waxal boppam na yow suñu borom li nga xam ne yow yaay ne na am mu am yow yaay wax ne nangam nekkal loolee nekk na nga faf sama dem bii nga joxal ma ko melokaan wu mel ni jawfal faraa waaye nag ñeel bindee fi suñu borom yépp nag ngir eh, dem bii nga xamante ne bii moom laa demoon ci géej gi gis nga kon toujours maa ngi mel ni moom dafa xam boppam xam goo xam ne xam ne yàlla bari la gum bare la koo xam ne ba saa bu koy ñaan ci yëg bu mu yëg ne lim defe woon am na ci bénéfice bu bare bare bari da ngay gis ne da koy langale ak loo xamante ne bi dafay daj bindee fi suñu borom yëpp yëpp yëpp yëpp dafay daj itam maanaam umma islamique yëpp la ñaan googu di daj ngir yëg bu mu yëg ne li mu demoon liggéeyali boromam nekk na ko mu mel ni kon bis bi ci jamono jii ñuy nekk dafa mel ne gën ca ràññeeku euh, lekk ak naan tey mm-hmm. waaye tam la nga xam bernde mm-hmm. waaw bernde daf cee bokk ah, waaye tamit ñaanaale na ko waaw maanaam euh, moom xew la ñaan goo xam ne nii du yem rek ci bis bi walla bernde sax du yem ci bisu màggal waaye du tàmbalee tam ci bisu màggal waaye bu bisu màggal ñëwee nag hmm. nam ko defee woon ndax as as as as as la amoon hmm. euh, woo xam ne ci mbokki mbusuubi yi la jóge woon hmm. mu yóbbu ko ci suñu mbokki séréer yi ci mbudaay ñu soppil ko ko am xar xar moomee tamit moom moom moo wax ne nañ ko ko defaral buñ ko lewetalee xar mi ñëw def ko ay saam mu santaane saam yam santaane ñu jox ko ko loolee bu jëkkee màggalal boppam mm. noonu la ko defee ne bis bii de damaa bëgg su ñëwatee ngeen sant la ma ci sama boroom mm. te bañ cee yéen mukk giléem wala ngeen ci xeet ganaar mm. lu waaye man ci sant la ma suñu boroom mm-hmm. nañ ma ko defal ci bis bii waaye kon jàng alquran comme dafa nekk mbiram ca bi muy dem boole woon na ci loolu kon dangay gis ne kon jàng alxuraan bi mhm. ak jaamu gi yàlla ak itam fonk waxtu juróom mhm. ci biir bis bi wala ci biir wàccaay bi comme ni nga xam ne ni lañ fonke bernde bi mhm. dafa mel ni tamit loolu bokkaale na ci biir ndax itam nit nag bariwaane soo koy defal lu mu bëgg euh, na nga bàyyi lenn loo xamante ne bii tam da koy bëggoon wala nga ci di ca dugal loo xamante bii bëgg ko kon bis bi moom bisu euh, sant la mm-hmm. sant yàlla nag mënu si koy wax si tom ya nga xamante ne bii moo nekk ci biir ndax loolu boo moo di sant mm-hmm. waaye nag waruñoo sant nag di sol ak sunu waruñoo yemale cant ci faat ay waxtu mhm. waaye waruñoo sant maa ngi dégg boroom xam-xam bu mag mhm. mu wax ne léeg-léeg ak sunu jib di soññe waxtu julli mhm. ñaareel ba ñu noddu teg ka ñetteel ba maanaam ñu lexaam te loola du du du mbir ne mu ngi yëgal nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd yi di reg-regloo ne waxtu julli bi nga xam ne fu mu ko masaa fekk ba ci am ndox def na ko fu mu ko masaa fekk ba ci jàtti joo xamante ne bii forêt classique lay doon mm. euh, def na julli googa lu mel ni kon loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne bii mm. moom mooy jëfal nit ki li mu bëgg ci bis bi nga xamante ne bii woote na ko mm. kon euh, bis la boo xam ne nii al ibaadatu wal xidma la jaamu yàlla ak liggéeyul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu bis boo xam ne dañuy sosaat yeneen jaamu yàlla bu yees waaye nag li fi nekkoon ci jaamu yàlla bu ñu dara tënk mhm. bu ñu seetaan dara baa ñuy déglu dara tax ñu bàyyi li nga xamante ne bii moom mooy waxtu juróom yi nga xamante ne bii dafa nekk ca bis bu ba jëkk ci weeru safar mhm. ba ca fukk ak juróom ñett ya nga xam ne nit ñi ngi yéeg di wàcc ñu ngi def lu nekk mhm. kon daal dafa mel ni daal euh, julli ndigalal sunu borom la loo xamante ne bii moom fonkoon na ko fonkoon goo xamante ne bii wax dëgg yàlla kon lu ko waaye di defal wala ku koy wuyjil ci bis mhm. bul bàyyi loolu bul ko wàññi bul ko néewal te alxuraan tam moom ah, def ko bëggan ba li mu def lépp ci la ko def mhm. li ci des itam mooy doyloo mhm. maanaam boo xam ne ne euh, maanaam man yàlla doy na ma te man doyloo naa ko man alal du tax may jëng kon nag loolu day daal di ci siwaat ci ndaw ñi mm-hmm. ndaw ñi ndaw ñi loolu day ci siwaat ci ñoom comme la ma xam ne kun katiman mm-hmm. li durri wal burra tanal xasdan wa taalil jiili wa kon waxan na ndaw li na nga jël sa mbir lépp teg ko ci sàkku xam-xam ak jëfandikoo xam-xam mm-hmm. waaye itam na fexe ba ci loolu nag bul jaay mukk sag leer di ko jënde ak ndaw euh, di ko jënde ak lëndëm mhm. mu mel ni euh, léegi bu nu xoolee dem nañu ba jàpp ne sunu gone yi nekk gi ñu nekk ci biir kër yi mhm. neexatu leen ngir fàggu mhm. fàggu mooy wut alal ñenn ñi gis nañ ne boo leen laajee dañuy wane ne dañoo xat ci biir kër yi kon loolu mag ñi am nañu abandement bu ñu def ñi ci des itam boo leen wanee dañuy wane ne xaalis ku ko amut bokkoo kon loolu bu jàng amee tamit éducation des na wala tam euh, jàngaleem diine amul dëgg-dëgg ba nit ki mën a jàpp ne hmm. dem Barsàq ak dem Barcelone benn képp la hmm. saa bu ñu annoncé ne trente personne dee na am na yeneen mille personnes yu laxasaawaat ngir dem te boo ko xoolee trois cent yi dina ci ñoo xamante ne bii dañuy ñàkk seen bakkan ñu ci des ñàkk seen wér-gu-yaram ñu ci des ñàkk dara ci seen cër mm. ñu ci des ñàkk seen seen xel complètement mm. kon moom itam daf doon kon dundu doomu aadama bi ni mu seere moom la tuddee jëwhër mm. kon loolu muy wurus wala jamaa kenn du ko jël nag di ko jëndee ay doj kon dafa mel ni kon ñu ngi doon wax ak ndaw ñi ci yaa ayyuha sibyaan laa tazdaqilu an ilhuda wa bil ulumi waaye nag wala si mu ngeen taxoo man laa yazaalu abida foog bu tàqalikoo ak ak jaamu yàlla kon dañoo war a bàyyi xel ne jànguleem ci ndaw daf koo fonkan dañoo war a bàyyi a bàyyi xel ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mm. xamal na valeur bi dundug ndaw am ba taxal mu teel leen a xëyu dana xëy yéen ndaw ñi bu leen yittewoo ci seen ak dund dara lu dul njub ak jàng ndax da ngeen di ndaw yittewoo leen jub ak jàng li ngeen di jàng tam ngeen di ko wattu mooy alxuraan mhm. li ci des tamit yenn milieu yi ngeen bàyyi ko fi waaw majalisa sax waaw barab way texe de ngeen bàyyi ko fi suratu Hidaaya am ngeen lu ngeen def mu ne wala si moom man laay salo abida ngeen dem taqaal taqoo ji ak ñi nga xam ne du ñu taqalikoo ak ak jaamu yàlla mm-hmm. kon mi ngi digle ne giddi yi nga xam ne giddi spirituel lañu mm-hmm. dañoo war a dem di taqoo ak ñoom ngir ñu teg ñu ci yoon woo xamante ne bii mm-hmm. yoon wu leer la teg ñu ci yoon wi nga xamante ne bii ñoom foofee fa la ñuy jaar waaye nag amoon na lu ñuy démb ak bërki démb feu ndax bu li tax am na fooy durut mooy lislaam mhm. dafa bindoo noo xam ne buñ la tegee ca yow man nakadi yow ma yow ma nangam yow ma nangam buñ la fa tegee mhm. war noo xisaab maanaam war a càmbar suñuy mbir mhm. dafa mel ni duñ la laaj ndax yow aman nga alal wala déet li nga aman ci alal fan nga ko dugal waaye duñ la laaj ndax aman nga alal ju bari bokkut ci liñ lay laaj ci bar sàq ndax la teewoon a ñàkk alal lu taxoon nga ñàkk alal bu ñu ko laaj mm-hmm. kon nag nit war nañoo yittewoo sunu boroom mm-hmm. xam ne suñu boroom dafa bëgg nit ñi ñu jaamu ko te recommandé wut ci nit ñi ne ñëpp dañoo war a am alal mm-hmm. ñun itam war nañoo fexe ba samp suñu njaboot bi samp boo xamante ne bii dañuy yar yarub diine ba nga xamante ne bii dañuy doylu ndax alal moom ñàkku fi dund ñàkku fi nii kër yi rafete baree ni bi nga xamante ne bii ci la ñuy ci anne soixante yi xaalis barewul woon nii xaalis itam amewul woon nii te teewul maanaam booba nit ñaa ngi dund kon bii ñu waxee ne ci la lépp jafee ci la lépp nangame ci la kër yi ak lal yi ak yére yi ci la gën a bari ci jamono mille neuf cent quarante jëm mille neuf cent soixante kon li fi nekk rek mooy ñàkk a doyloo li fi ne mm. moo fi waaye fexe nag ba doyloo li fi buñ ko defee rek dana ma doy ndax moom naka jëkk bañ ko waxee lu mel noonu tamit daana wax ne man man yàlla doy na ma te man doyloo a ko man alal du tax may jëng hmm. kon nag ñun war nañoo tànnalaat suñuy ndaw suñuy loxo hmm. defaat leen aussi wan leen nag ne leen na ngeen wëlbatiku hmm. na ngeen wàññeeku ndax itam li ngeen dajale ba am cinq cent mille mhm. su ngeen ci continuer man ngeen a dem ba euh, am loo xamante ne bii daf leen di génn ci lii mhm. wala si ngeen di jël gaal goo xamante ne lu nekk man leen caa fekk loo xamante ne bii dafay yóbbu bakkanu doomu aadama mhm. euh, côté boobu loolu rek laa ci bëggoon a wax ngir nag ndaw ñu wàññeeku xam ne bar Barsàq ak suloon bopp ay jëfin mm-hmm. bopp dañ dañoo war a def fii ci àdduna mm-hmm. jaamu fi yàlla lu mm-hmm. tax ñu am lu ñu yóbbu fa kanam suñu borom fii ci àdduna dañu fay indi ngir nu moytandiku yàq te suñu borom dafa tere yàq te bañ koo xamante ni bii da koy def waaye dafa bañ kuy fowe bakkanu doomu aadama rawatina kuy fowe sax sa bakkan suñu borom daf koo bañ bakkan bi jaamu yàlla ak liggéey rek ñu bëgg nit ki def ko ci waaye al fasaadu fil ard moom mhm. suñu borom daf koo tere complètement ci façon bu nekk nag mhm. la tere yàq moo xam ci yàq yaram la wala yàq ruux wala dara ba tax fekk ñoll yi ak yooyu ñu di ko tere mhm. kon dëkk ak wëlbatiku war na bu baax a baax a baax a baax a baax euh, bi ci toppaat itam euh, da gis ne fii nga xamante ne bii fi la jamono toll tey ak li nga xamante ne bii moom moo taxal Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul jóg euh, dafa mel ni am na ci yu bare bare bare ñu ngi koy bëgg a commercialiser mm-hmm. am na ci yoo xam ne dañ ko dugal folklore am ci yu bare bare bare dañ ko dañoo yolomal dañoo yolomal suñu loxo mm-hmm. ci fi nga xamante ne bii mooy yoon wi ñu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul xottiloon mm-hmm. tegewaat nag ci yeneen yoon yoo xamante ne dañuy amaat leneen lu ñu xemmem wala keneen ñëwaat itam am aw yoonam woo xamante ni bii ci la doon dox muy ban yoon woo xam ni ci àdduna la jëm woo xamante ne bii ci lu jëm ci loo xam ni leneen lu dul diine la wala leneen loo xamante ne bii du lu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul euh, la mm-hmm. loolu nag tàmbali nag di nangu lu bare bare bare bare ci xeli doomu aadama yi hmm. ba mel ni bisub takk or la mel ni bisub ëpplante ci ay koddaay la hmm. mel ni bis la boo xamante ne bi euh, toog ci kippaar jàng fa ñetti xisibi alquran te Sëñ Tuubaa moo waxaan adim tilaawatal qurani walaw salaasatan min al hmm. kon bépp murit bu nekk warteef la ci yow saa boo xëyee lu mu néew néew nga jàng ndax addim mooy mooy saxalal mm-hmm. saxalal lu mu néew néew ñetti xisibi alquranul karim mm-hmm. warteef la ak charte la ci li nga xamante ne bii moom mooy ku nekk ci yoonu murit mm-hmm. warteef la ci yow te loolu tamit di koy fàttali dafay nekk loo xamante ne bii lu baax a baax a baax a baax la lu ama ama am am solo la ba nga xamante ne bi saa bu ñu toogee ak réew mi FM rek mhm. nga xam ne déglukaay ñëpp la dañuy jéem di delluwaat ci yii nga xamante ne bi mhm. ay ndigali Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul la mhm. waaye bi muy dem itam loolu rek la batale woon euh, wax leen ñaari doomam yi nga xam ne ñoo fa teewal premièrement la mu jëkk wax Baye Thierno àggalal seenam njàng ndeysaan ma teg leen ci say loxo waaye ma bàyyi leen nag ak yàlla mi nga xam ne moom mooy dundal mm-hmm. kon loolu tamit leneen la loo xamante ne bii yëf la yooyu ndaw ñoo ko moom ñoom ñoo féetewoo loolu mm-hmm. war ko gérer doxal ko doxalin woo xamante ne bii wu mucc ayib lay doon ngir rek di ko fàttaloo euh, Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul li ci des itam mooy yaatal mm. ak ak yaatu yaatal nag ak yaatu moom waxan na dëkkam bi dafa bëgg mu niroo ak turandoom ba hmm. kon dëkk ba fàtt waxoon na ko hmm. ay xalifaam jaaraat nañ ci fàttaliwaat ko hmm. muy am na lenn nag yoo xamante ne bi dañ koy dolli ci suñu dund mooy xeetu col ak xeetu comportement wala lu jëm ci wàllu drogue ak yëkkoon niru yëpp sol bu baaxut ak yëfu néew yi loolu lépp itam nag moom daf ko masoon a bañ ci dëkkam bii moom na daa bëgg mu doon dëkkab xam-xam daa ba bëgg doon dëkk boo xamante ne bii dëkku bii yitte lay doon mm. maanaam dëkk boo xam ne dëkk digg-diggulu sunu borom la mm. waaye dëkk la boo xamante ne bii tamit daa bëgg mu nekk nag ci farata ak ci sunna mm. moo tax mu ne moo tax mu ne alal furuudi wa sunna Hmm. alhamdulillahi alkarim silminani alastighali bi furudin wa sunna kon moom bëgg-bëggam hmm. mooy teg mbiram ci farata ak ci sunna li nga xamante ne bii nag du farata ak sunna ah buñ ci jéemee nag di ci dugalaat nag yeneen luwaa nag kon day mel ni dafa am lu sëñ bi indi hmm. loo xam ne neexoonu nga xam ne loolu nag képp ku ko bañ itam moo xam da doon def greffage ñu tere la ko boo ko ñaxtoo rek day mel ni bu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam del siwaatoon jamono doo ko wuy ji waaw ndax moom li may diggeeg li muy santaane génnul alquran ak sunna déedéet génnul alquran ak sunna mm. maanaam ba muy wax soxna Penda Diop ne ko duni ala tasatturi maanaam wal xumum maanaam lëbbal si jëmm ca suturaal ko te jiim jiim ci sabtaar sabtaar na ko denc bu ko yóbbu ci yenn milieu yi mooy kon booy dem ci yenn milieu yi kon na nga sol col gu daj mm-hmm. saw yaram mat ko sëg ba pare bañ a yaraax bañ a xat mm-hmm. te loolu ba mu koy wax yii association yi wala ñi nga xam ne nii moom la ñuy wax jamiatul ibadu rahman booba sax amaguñu mm-hmm. waaye te it na nga doon santaane nag booba nit ci di sol col goo xamante ne bii bu mucc ayib lay doon ndax daf ko wax ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki kon soxna Penda ginnaaw bi nga ma laajee ak jullit nan la war a comporté woo moo mm-hmm. ko man daal maa ngi lay dénk yow sama soxnaa si bàyyi tax mm-hmm. mooy mooy koo xam ne nii magu bàyyam moo ko moo ko doon dénk mm-hmm. kon Patrick na nga ragal suñu borom waaw ragalal yow sa borom mooy suñu borom tabaraka wa taala te na ko topp waaye tamit nanga nga fexey ba moytandiku jëw ak yi niroo ak moom yëpp waaye soxla pendakat nanga nga fexey ba suturaal itam sa jëmm waaw yow soxna pendakat nanga nga itam ba ginnaaw boo bàyyee fen ak jëw bu ko def mukk ak rambaaj ak yi niroo ak moom ngistal ak ndéggital itam na ko bàyyi maanaam ak ya nga xamante ne bi moo niroo ak moom waaye tamit yow soxna Penda na nga fexey ba maanaam euh, suturaal gis sa jëmm hmm. waaye tam na nga sàkku sa ngërëmal borom kër hmm. ndax kat soo amee sa ngërëmal borom kër yow soxna Penda di nga am ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. waaye di nga am ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala waaye tam di am sama ngërëm kon mënoo am sama ngërëm mukk te amoo sa ngërëmal jëkkër waaw maanaam daf ko won ne ko carrément faw nga am sa ngërëmal borom kër ndax fu mu la ñàkkee gërëme sunu borom du la gërëm kon nag borom kër boo xam ne dafa tege ci yoonu lislaam fu mu gërëme soxnaam rek soxnaam soosee am na ngërëmal yàlla moom am na ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ngërëm itam sëriñam ak ku sëriñam man di nekk loolu nag dafa wuute trop ak euh, façon col yi ñuy def di dolli ci sayoo euh, beneen plastique pour mu niru wet wu <laughs> gudd mu mel ni wu gudd day farata dëgg la dolliwaat ci sa bopp beneen matière plastique am na sax ñuy wax zéro euh, naturel mooy karaw boo xam ne nii <laughs> chanru tabian yi lay doon du naturel <laughs> ah ma ne lu saxul ci yow moom du naturel moom waaw loo xamante ni bii nag dañ koo transporter feneen mën naa am sax mu jóge ci nit mm-hmm. boo xam ne bi koy jël ci moom génn na àdduna wala mu jóge ci beneen animaux boo xam ne daganu la taqool mm-hmm. wala mu doon euh, plastique ñu defar ko ba mel ne comme karaw dugal ko ci usine bi liggéeyaat ko mm-hmm. nga xam ne benn plastique lay doon bu doonu plastique bu dee lu naturel moom bu dee jóge ci nit mm-hmm. bu du nit ko jullit rek karaw googu du du du dagan euh, ak <laughs> taxoon mm-hmm. kenn waru koo teg ci saw yaram mm-hmm. waxatuma di fanaan ak moom ak yendu ak moom mm-hmm. ndax kon moom nekkul naturel naturel nag ah. day nekk loo xam ne nii maanaam lu tabiay la ci sa yaram maanaam suñu borom moo la mooñaale ak moom nga juddoog moom muy màgg ci yow wala mu judd toll nam toll loola moom mooy tabian yi waaye yii ñuy def nii waaw bëggoon naa itam euh, euh, sëriñ bi ñu ñëw ci taxawaayu xalifaam yi ndax li nga wax fi yëpp euh, mu di ay tere yu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tere woon démb mhm. bu ñu xoolee ci xalifaam bu tedd bi fi nekk tey sëriñ Mountakha Mbacké moom la ba am ñoo xam ne ñoom ñoom la sas liggéey booba ngir ñu taxaw ci waaye lu jiitu sëriñ mun taxa Mbacké yàlla na fi yàgg te wér itam xalifa yi mhm. fi jot a jaar yëpp taxaw nañu ci santaane ak tere yi Cheikh Ahmadou Bamba waaye ku ci ne itam am na liggéey boo ki la jiitu bàyyi woon eh, ci yoonu si Ahmad bàmba bi ndax mun nga ñu ñëwal ci taxawaayu xalifaam yi ci tënk xam naa ne lépp du ci xaj ndax waxtu waa ngi ñu si waaw xalifaam yi nga xamante ne bi ñoom ñoo fa nekk woon ak yii ñuy tere dëgg ndax xam nga alxuraan moom boo waxee ne lépp luy muuram xel rek hmm. maanaam ba jóge ingénieur ak ba jóge ca usine ba ñoo bokk yam hmm. moo xam bu ñu pikiroo la wala bu ñu fóon la kon moom ñoll rek buñ ko xasee ba wax rek mooy lépp lu mën a muur am xel mhm. loolu xalifaam yu jëkk yi jiitu cheikh mohamadul fadal cheikh mohamad cheikh cheikh mohamadul mustawa abdul ahad nag bi koy tere da ko jaral sax ma dem ci ñun bokkal sëriñ Tuubaa ñëpp góor ak jigéen na la lii ka laa gis ne suñu wéy jur wa da ko doon tere te rasulullahi sallallahu alayhi moo ko jëkk tere mhm. lu ngeen ci xam ñoo nga jàngaloo la daal di signé ca wet ga woon ko ne ko lii nga fiy tere ànd nañ ci tere gi lii nga fiy digle ànd nañ ci digle gi hmm. ba mu koy dindi dindi wu tar la ko dinde ba jaral na ko dem jëli ay soldaar ñu ànd ak i dawkat ñëw di dindi loola mu nekk lu fësal loo xam ne ni cadduna hmm. noonu la demee kooka nag itam ba mu defee defut loolu rek yem ci waaye yeneen nit yi soxla woo moo yaatal dëkk bi hmm. ci sanc ay dëkk daanaka mën naa ne la li féete ci sow bi ba ci wetu càmmeñu gànnaar gi lépp mm-hmm. moom moo ko lotise muy ay jànnatu yoo xamante ak i mm-hmm. ak i nàngam nàngam yépp sëñ Abdul Ahad ko def mm-hmm. eh, yokk jumaa ji ay tali yu baax ñu dugg si ci biir dëkk bi ay ndox yu bare bari ay forage def ko ci biir dëkk bi tàmbali woon na sax dara ci assainissement ba pare yokk xam ne mbooloo nii mu wax na nañ fi dëkk si suñu ñëwee di fi julli si maanaam ala kulli xaal ni yell na kon ñu yokkaat néegal suñu borom bi hmm. waaye alxuraan comme suñu borom inna nazalnaahu la waxan wa inna ilayhi la xaafisun hmm. kon nag itam waris naa wut téereb suñu borom bi nga xam daa bokk ci sembulu Seex Ahmad Bamba Xaadim Rasul ñu wutal ko kër ak boppam daal di rëdd ay armel def yu bare bare bare hmm. Seex Saalix Mbàkke bi mu ñëwee dafa wax ne taar bi mu war a am incha allahu danaa ca tege ngir li ñu yokkoon ma ñëw fas yéene koo àggale waaye lu dul diine ak lislaam duma ca wax duma ca def duma ca dindi yokk na njàngum alxuraan wut ay toolu yaatu ca xelkoom ne nañ ma jox ndaw ñi ma yeesalaat ji fi Sëñ ci ñoom lam Sëñ Tuubaa defan ca ma ñëwee yi ndax bareetuñu ñu jox ma ndaw ñi ma def ko ci ñoom muy jaamu yàlla ak liggéey wut ay tool wut ay daara def ca dépense ya bari trop lépp bari ca teewut tool yooyu njàngum alxuraan ne moom moo gën a dox téeméeri yoon mbay ma njàngum alxuraan ak la fa fi la fa bind ci ay kaamil soo ko xoolan des na tuuti ñu jàng ci réew mi boo leen tegan teg ñi nga xam ne bii ñoo génn xel kon te kenn ku ne dangaa mokkal ci mbind mokkal ci jàng hmm. ba pare mokkalaat ko ci tarif muy ñetti wàcc yoo xamante ni bii taamu nañ ko ci ku doon jàng alxuraan nga mokkal ko qiraatan wa kitaabatan mm. waaye tamit nga mokkal ko tamit ci maanaam tafsira muy ñetti mokkal yoo xam ni mm. ku ko def ci alxuraan rek eh, dangay ngay tàmbalee neex a jàngal xam-xam loolu Serigne Touba Cheikh Salif Mbacké def na ci lu bare bari mm. daal di yeesalaat nag baatu bernde bi nga xamante ni bii ba sëñ bi doon wax bis bi moom la baamu ne nañ ci bernde te tam def ko ci ñam yu dagan mooy diggante ganaar ak gëléem mm-hmm. waaye nag suñ saalu fàttaliwaat na bu leen def nag nu ñu jiitu defar ndax ñu jiitu booba dañ koo fonkat gana dañ koy def tëbaskiyaat waaye yéen am ngeen seen bisab bopp boo xam ne tëbaski keneen a ko moom kon tëbaskiwaat amuleen ko yéen màggal mm-hmm. ngeen moom saxal loola mm-hmm. liggéey ci liggéey bu mag ànd ko ak ndaw ñi def ci jëf joo xamante ne bii ju ama ama am solo la waaye tamit noonu la yeesalawaate woon nag créé suñu borom yi mm-hmm. di yeesalaat ndigali suñu borom yi ba nga xamante ne bii ni la alxaaji baar def ne moom ay baayam mm-hmm. ñoo fi nekkoon li ñu doon def rek moom loola ci la fas yéene wéy lu mu ko mën a yokk mm-hmm. mu yokk ko ca waaye amul dara lu xëy wàññi ko ndigal fu waay nekkan ci ndigal mu bàyyi laa ndigal loola fu waaye nekkoon yor baatu Sëñ Tuubaa mu bàyyi la baatu Sëñ Tuubaa booba mm-hmm. moom itam liggéeyaat lu bëree bëri mm-hmm. ci biir kër Sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñooy recevoir gan yi liggéeyaat lu bëree bëri ci kër euh, néegu suñu borom bi nga xam ne moo ne ci dëkk bi mm-hmm. waaye defaraale tamit jikkoy doomu aadama yi Cheikh Sidi Mokhtar bi ñëwee waxam bëriwul waaye li muy nii ne wax waxaat na tere na ci koddaay yi te ñu am pastéef ci liggéeyal Sëñ Tuubaa moom itam daal di ko door Masalikul Jinaan ci Dakar mhm. song ko maanaam wane ne li na Touba muy sëmbulub néegub yàlla war naa am fii ci Dakar ndax yaari guddi yi mu fi defoon mhm. noonu tamit la toppe Touba gis ne doomu lu gën a sellal fiñ koy denc mu gën a baax mhm. mu daal yeesalaat armel yowuy juróom ubbi woon ci rëddoon ko miire ko bàyyi ko fi mu ne nag sanc ko nag léegi jaadu na ndax yaatal fii ca feexal ko mm. daal di defaat nag feneen foo xam ne nii fu bees daal di junju université bii nga xamante ne bii moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha radiallahu anhu nekk fii ñu toll nii dal di salaat itam lu bare bare bari ci biir Touba ci wàllu courant mm. salaat lu bare bari ci kër Sëriñ Touba yoo xam ne ay bâtiment lañ fa def yeesalaat lu bare bari ci daara yi mm-hmm. daal di yeesalaat itam lu bare bare bare bare ci lépp loo xamante ne bii euh, dafay doxal Touba muy euh, maanaam moytandiku biir sant bi mm-hmm. ñu wàññi commercialiser biñ fi bi fi commerce ba ba gën a occupé mm-hmm. ñu gën a arrière pour génn dem ci corniche ba ba mu defoon déguerpissement boobu nga xam ne moom la defoon mm-hmm. ngir yaatalaat dëkk bi solo itam kii bi ñëwee defaat na loolu bañ toogee nag ba gis ne lenn ci nit ñi nag mënu guñoo tëba tëba tëb bàyyi loolu hmm. mu ne man nag am na ñu sama maam àndaloon hmm. ñu di leen di wooye ay Baye Fall ca fi ñu dëkk soriwul ca ndigal rek ca la ñuy dox hmm. ñu yëpp di dox waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall waa mu waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall mu leen bañ ñëw ne leen lii laa bëgg bii buñ dee màggal ak buñu màggalu yii laa ko bëggee nga xamante ne bii maanaam garab yii biñ leen di dagg ngir yaatal yoonu jëm ci euh, kër ak sàkkukaayu xam-xam ba ñoom la ko jox marché bu gaar ba ci seen loxo la ko teg ñu defar ko ba mucc ayib mm. ndax tabaxat nañ fu ñu wër tabax tabax nañu tabax yi ak gut ñu bàyyi ko fa ñu fa wër te dëkk dëkk ko fa di jëfandikoo di ak sàngara mm. ak cigarette mu fexe bañ jëlee leen foofa teg ko ci loxoy Baay Faal yi nga xam ne ñoom ndigal rek la ñuy dox mm. dafa mel ni maanaam saa boo ne nangam laa bëgg wala bu Sëñ Tuubaa ba saa ne nangam laa bëgg ñoom amul déet hmm. waaw rek lañu am xam ndax seen maam di maam Cheikh Ibrahima Fall noonu la ànde woon ak Sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul hmm. ba nga xamante ne bii lu mu ko masaa sant wala lu mu bëgg rek maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina mi nga xam ne yoonu murid ñëpp wala li ëpp ci cheikh si nangu woon nañu ak xejjam hmm. ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul kon sëtam yooyu tamit ñoom lañ wëlbatikuwaat nag ne nag dafa mel ni nit ñi ngi dëgër bopp ndax li fi jaar ci ay xulafaa yëpp tere nañu lii waaye dafa mel ni euh, mën a guñ koo baax waaye kon yéen na ngeen dox seen diggante ak jëfandikoo ko moo xam wateef bu bon la ci góor wala wàcce tubayam wala euh, war am moto ci góor ak jigéen wala jigéen képp képp war ab moto mm-hmm. baa mu sol yére boo xam ne dañ koo xar ba ci poojam mm-hmm. wala mu yaraax ba jéggi dayo wala mu doll ci ay xefam dara wala mu meloo wenn melokaan woo xamante ne bii daal wu jéggi dayo la ci ab gis te judduwul noonu mm-hmm. loolu daal ñu ngi koy tere fii kon ñu ngi fi teree ku fi am boîte de nuit kon ñu ngi fi teree koo xamante ne bii da nga koy organiser mel nam ko ba yaakaar naa sax wàllu làng politique wala barab bu meeting ak yooyu yëpp duggaale na ci biir mm-hmm. ngir rek jëfandikoo fi li nga xamante ne bii moom la borom dëkk bi santaane woon mm-hmm. loola Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké euh, busral umma li nga xamante ne bii bi siw bi nekkee ci fan yi ñu nekkan ci la way juróom bu góor ganee woon jamono mm-hmm. ndax dafa wax ne loolaay lépp suñu Basiiru mbég ma moom mii tamit bi mu ñëwaatee bëgg gum bëgg lislaam man itam ma tudde ko busral umma moom itam bi mu ñëwee tamit foofa la dal di tegaat ab tànkam mm-hmm. ngir fas yéene lépp loo xamante ne bii du lislaam mu génn ko fii taxaw tam ci xam-xam tasaaroo mm-hmm. waaye xam-xamu diine mm-hmm. taxaw itam ci jaayante bu euh, xam-xam taxaw ba pare nit ñu am pas-pas ak yitte ci taxawal li nga xamante ne bii moom mooy diine islaam ci dëkk bu tedd bii dëkk bu sedd bii nga xamante bii moom dafa waxam ne mislas nihaa maanaam yàlla na sa borom def ko ginnaaw bu ma waxee tombe yëpp yàlla na sa borom def ko nag mu niroo ak turandoom ba ca aljana mooy garabu Tuubaa googu nga xam ne nga ko niru ci xéewal mhm. ci dal ci lépp rek ci ci diine ci lépp loo xam ne suñu borom ah, bëgg na ko mhm. suñu borom bañ na ko kon mboolem ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mhm. da ngay seet li Sëriñ Tuubaa bëgg nga teg sa tànk soo noppee ci liggéey booba keneen ku ci ñëw itam li Sëriñ Tuubaa bëgg nga teg ko sa tànk mm-hmm. nekk ca ba loola sotti gis nga mm, pour nit yi nekk ci jàmm mm-hmm. dafa naa ca Cheikh Mouhamadou Mountakha gii mm-hmm. gis nga hôpital yi. waaw ak yëpp. Mm-hmm. ngir rek jàpp na ñoom ñoo war a taxawee doomu aadama yi. Mm-hmm. ci fànn googu. Mm-hmm. réew mi sax bu nekkee ci jafe-jafe ñoo ciy njëkk dugal seen loxo ku mel ni Serigne Mountakha ñu ngi fàttaliku Covid bi ak taxawaay bu rafet. bu mu si waaye jafe-jafe it bu dalee doomu aadama yi euh, da cay am taxawaay bu mucc ayib. waaw xam nga Cheikh Mouhamadoul Mountakha moom dafa mel ni saa bu génnee xaalis joxe. nit yi dañuy yëg loolu siiwal ko. mu mel ni saa bu ñaari kilifa dajee ñàkk gin leen di ñàkk a taaj ci pénc bi wax leen seen bopp ñenn ñi dañoo jàppe loolu ak noppi mm. wala jàppe loolu ne waxut ci loolu loolu tamit xam naa njuumte lu mag a mag a mag la mm. ndax nag itam fi mu toll ci xam-xam mm-hmm. toll ko ci ak kilifteem man yaakaar naa ne du am kenn man ak yow bu ñu jote mhm. du ñu taaj mukk ci ab saal ñëpp toog média toog ñëpp toog mhm. mu yedd ma ba woon ma ne ma yaatooñ soxna fàccaan mhm. dafa am worma wala ah dafa am worma dafa am worma worma jooju mu am na soo ko su ko seqee ak nit ku am doole parce que sax man dinaa jaar ci digg bi ñenn ñi dañoo jàpp ne waxul ak Macky Sall mm. ah kay xanaa kay dafa waxiitoon moom ci pénc mi waaye moom moom lépp loo xamante ne bii ëgsi na ci moom hmm. uh, ala kulli xaalin dana ca wax ak kam ca waxal wax ci ak ñun ci war waxal ba àgg ci nag ndaw bi nga xamante ne bii moom mooy ci jiite réew mi hmm. ne ko lii laa dama lay wax ne la tere yi dama koy def hmm. laata ñu di ko fisal Macky Sall la indi ba mu ñëw bu dee ma euh, Cheikh Abdoul Ahad way juróom mm. daawoo doomi Sëñ Tuubaa yëpp ñu signé mm-hmm. gouverneur ñoom ñëpp ñu dem yóbbu ñu fi nekkaloon état bi mm-hmm. waaye Cheikh Mouhamadoul Mountakha mii tamit mm-hmm. bu ngeen bu ngeen xoolee ne maanaam amul kenn koo xamante ne bii wala lenn muy xew moom yëpp ci ab noppam di ca tànxamlu da ngay gis naa ne lenn ci xale yi fi mu féete euh, dañuy bëgg ku fa fësal ba loolu am na sax lu leen di yàqal ñaare ndax dañuy dem ba jàmmaarloo déclaré nit ci xeex mhm. te ki ñuy déclaré xeex ak ñoom ñoo ànd euh, euh, samp baatub saaga mhm. samp baatub xaste mhm. monte yu bare bare yoo xamante ne bii euh, jëkkul jaaduwul am na loo xamante ne bii kenn amul résultat bu concret ci ne sëñ bi waxul ak kilifa yi seq langue politique bi dañuy dem ci moom di ko wax mais moom itam Euh, da leen di wax. Mm-hmm. Ah, nit nag ni ñu bëggee loolu borom xam-xam bu jëfandikoo xam-xamam. dëgg la du doxe noonu. Mm. kon daal ci tënk loxoom génnul ci réew mi. waaw loxoom génnul ci réew mi xam nga dafa am yoonu murit ni muy doxee xam nga doomu Ablaye Wade. Mm. ak Ablaye Wade ñoom ñëpp dañ leen xam ci yoon wi. dëgg la ci yoon wi lañ ne waaw biñ leen tëjee. Mm. waaw dañ leen a tëj ba génne leen ba la tëj leen ba exilé leen. Mm-hmm. waaw foofee nag itam na ma yàlla baal ku mel ni ñii àndan ak Sonko ak opposant yi tamit mhm. tëjagul leen lu toll liñ tëddal per Karim Wade te mosoo dégg sax benn xalifa sunuroo sax nag addu mhm. ci daf addu ci lu tax mooy euh, waaru biir rek lañ ko mas di ko dox dëgg la am ci ñoo xamante ne bii niñ koy lijjantee soo miinu dëgg dëgg dëgg dëgg kilifa yi miinu dëgg dëgg yoonu murit mhm. man nga cee euh, juum man nga cee naa sa erreur man nga cee indil sa bopp sax jafe-jafe boo xamante ne bii mm-hmm. doo xam yow nan nga koy lijjantee mm-hmm. li ñu war a def ñoom mooy jaamu yàlla ñu ngi tudde santaan mm-hmm. li ñu def muy leneen amaa nag politique nag ñaari nit la yoo xam ne nit la yoo xam ne ñoom ñoo ko seq te ñoom itam kuréel bu néew la waaye tam nit ci dañoo war nag nag di fexee nag ba xam ana kilifa diine ana lan mooy warteefam kilifa diine ana nan lay waxe nangam nan la ci kilifa diine gi war a taxawee ndax lu mu ciy taxaw wala déet waaye ñenn ñi moom euh, xamewuñu yëf yooyu mm-hmm. noonu ndax itam am na loo xam ne dafay laaj maangu mm-hmm. am na loo xam ne dafay laaj itam tey ndax man ak yow suñ jotee ma ëpp la doole baa ngëpp ma doole ma tooñ la mm-hmm. ñu daal di koy am nuñ ko àttee rek dinañ dinañ la gaañ yow mi néew doole am na noo xamante ne bii tamit ne la ku néew doole di dale ci kaw ci ko ëpp doole mm-hmm. am na noo xam ne soo ko attee di gaañ ki nga xamante ne bii moom moo ëpp doole mm-hmm. ndax du caagleenu loolu ba mu amee rek mm-hmm. dañ leen dem teg leen ci pincum lislaam atte leen waaye ci atte tubaab bi lañ leen atte ñuy bubaagante bi waaye ba ba tëj kenn wala ñu exilé kenn wala ñu def kenn lenn waaye nag atte bi ñu leen doon atte ci diine des na yebal njabootu eh, Cheikh Alhaji Malick mm. njabootu Cheikh Ahmed Bamba mm. njabootu maam Amari Ndak mm. ak mbooleem kër diine yi fi nekk ñu daal di dem def acte boobee médiatiser na lii moo ci war waaye nag bu nit yi jàpp mukk ne kilifa diine yi ci réew mi waxuñu ak politiciens yi yi wala waxuñu ak ñu yore nguur gi ak ñu yore pouvoir bi xañ na nag adduna moo demee noo xamante ne bii mm-hmm. ah néew nekkul loo xamante ne bii neex naa xam mm-hmm. waaye incha allahu li ci kanam moom rawul ay bët rawul ay bët nit ñi daal li ma la mën a xamal ci gàttal mm-hmm. doo gis mukk ñu taaj kilifa ne ko defal nangam wala bàyyil nangam wala tam ñu ànd ak buur ba ñëpp gis ne dañoo ànd ak ñoom wala ñu contre ko itam ba ñëpp gis ne dañoo contre buur Hmm. loolu moom bokk na ci li nga xamante ni bi mooy njàngaleem Cheikh Ahmed Bamba Xaadim Rasul hmm. bokk na ci itam li nga xam ne moom la fi bàyyi hmm. te ak njabootu tamit amul kenn ko gis na la bañal dara ci kilifteen gi la yàlla jox amul kenn koo xamante ne bii tamit danañ la wan ginnaaw ci ndomba gi nga xam ne nii moom la la àdduna takkal kenn ku ne casquette boo fa yóbbu rek ñu sàmmale la ko jaar ci seen discours ci casquette bi nga am ak dara ji la yàlla jox mottalee ko sax ñaare eh, seen seen discours mm-hmm. waaye nag bu tee nag bu bu ëllëgee nag bu leneen amee fu mu mën a jataay ak yow benn nga fekk si leen mm-hmm. wala ñu yeble ci yow incha allah bu boobaa moom lay dëgg wala la ca seen ak wàll mm-hmm. danañu ko wax dox ko ba mat sëf jërëjëf dañ na nag doomu aadama moo bindoo euh, lu mel ni yàkkamti mm-hmm. ndax yàlla sax yéexut waaye doomu aadama moo yàkkamti <laughs> te itam lu ci bare bare bari mm. incha allahu taala suñu borom dana ko saafara mm. ba lépp delluwaat ci jàmm ak mm. salaam lépp itam delluwaat ci lu stable loo xamante ne bii nit yi mën a dund. Mm. dund gu dal la macha jërëjëf Ndiaye loola yëpp dafa tënku rek ci war ma ni xalifa yi doxe mm. euh, kilifa yi mm-hmm. ne yëpp ndax kilifa yi leen fi jiitu ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba maam El Hadji si Sy Maodo. Mm-hmm. ñëpp ci war ma lañ doon dox. Euh, santaane mm-hmm. yeeg tere yeeg yëpp ci war ma lañ ko doon teg. Euh, kon itam ñii ñu fi bàyyi ñu wuutu leen mën mënuñoo wàcc woowale yoon. ñu ngi leen gërëm bu baax xam naa ne ci Cheikh du Bamba ak màggal gi waaye mhm. waxtu wi moonu ko dul may waxtaan bi dafa solo ba duma la sax doon bëgg a dagg di dugal ay laaj waaye daanaka mhm. wax nga lépp ñëw nga ci actualité ñëw nga itam euh, ci santaana yañ doon santaane démb ak lañ doon mhm. tere démb te boo ko indee tey it mu yemoo ak actualité fi réew mi toll ak euh, surtout fi ndaw ñi toll loolu am na solo muy wane ne itam xam nga fi réew mi toll xam nga fi àddina toll euh, sa itam ay waajur ni ma ko waxee sànq ci ndorteel waxtaan wi jaxasoo woon ak Cheikh Amadou yow mhm. boo toogee loonu ci wax rek dañ koy mën a uh, ëw takk téere ñu ngi lay gërëm bu baax Serigne Moustapha Ndiaye Thiargane di uh, am mbégte lool saa su ne di sëkk ak yow waxtaan rawatina ak waxtaan wu mel nii ndax dañu ciy jàng lu baree bari ñu ngi lay ñaanal yow itam màggalu jàmm di la ñaanal yàlla fay la yiw uh, ci xam-xam bii nga fi sotti tey jërëjëf Ndiaye jërëjëf soxna Fatou ñu ngi lay nuyu baax di la jaajëfal waaleykum salaam wa rahmatullahi wa kon mbokk yi li doonoon seen émission démb ak tey ñu jagleeloon ko màggalu Touba cent vingt neuvième édition ñu fas yéene ko amal ci altine ji di ñaanal ñëpp màggalu jàmm gërëm ñi doon déglu ñëpp gërëm jaaw jàllo mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi ñu ngi leen di ñaanal kenn la jàmm di leen dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen jërë ngeen jëf.